abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir saa su ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim dikkati naa comédie judiciaire ba day dàq nañ ko ba jëmmi jamono tribune yéen a kaay naan man théâtre moom mooy procès Sonko mi ak Adji Sarr yéen a kaay dee bi ne ma waaye coow lu coow li ma ne la la ma ca xam la ma cay wax bari na lool tegal fii sa loxo ma ne ko ay ca mu ne ma ña nga xam ne faatu nan ci coow li fukki nit ak juróom ñaar yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan diggante nag coowal suite boti li jëlal Sonko bàyyi ko Adji Sarr wax dëgg waxul dëgg coow la mel ni tulleeg maale ci réew mi ma ne la fukki bakkan ak juróom ñaar daal di cay rot tribune naan man fukki bakkan ak juróom ñaar yooyee kan moo leen gàlloo ci ndoddam fii laa la wax ci àddina kan moo leen di layoo kan nag la ñuy taqal ci faatu googe ba daal di ni niib jàpp ndax benn bakkan ku ko faat ci réew mi te ngir dund moom kaso ba ngay ne fa yàllaaqu fukki bakkan ak juróom ñaari ci ndoddu kan la ne suur su aane ma kaay ma xamal la ni Pape du Keita moom la ñu faat kër Mbay Faal fukkeet ak ñaar dongu la amoon 9h ci guddi ba mu paasee la wifi bi am problème mu génnee kër tantam di xooli dugg ci boutique moog ñetti xaritam jënd jus ba noppi dégg riir ay nit di daw mu daal di topp riirandoo ba daw yéene kaay bi ne ma balub doq lañ ko daal di dóor tante ji naan ba ma ko fa fekkee Amadou day ma nga tëdd ci taabal ñu daal di jël ab sër daal di koy muur coow la coow la moom moo di moom amadu ci boppam ña fekkee ba ñu koy tiire ñëpp nee ñu ko ko tiire sol ab uniforme laaj ba nag mooy takk der la am déet suur su naan maan si moom i takk der bi faatu daal dinay bàyyi ci ginnaam njaboot goo xam ni ña nga sëngeem le témoin yéene kaay ku naan maan si boo xun ma viol sakata makata bile viol yéene kaay bi naan maan violu aji saar gii maar day taali waay waay bile viol moo ñu lakkal lakkal askan wi lëjël na askan wi cher na ngir république bi daanaka ñaar fukki bakkan rod na ci alalu doomu aadama yi nga xam ne ñoo ñaq moom ko ñu yàqu ko ay milliards milliards yoo xam ne tàbbi na géej ngir viol bi ay nit yoo xam ne ñàkk nañ ay bëccëg yu ñu waroon liggéey ñu ñàkk ko ndax viol gi ay mobilisation am ndax viol gi xaalis bu takku di génn ci mobilisation googee ndax ndax takk xam ne moom la ñu jëfandikoo yéen xaalis la lu ko waral yéen kaay bi ne ma viol bi suñu yoonu réew ñu koy caxat caxatee ñenn ñi naan gëm nañu ñi naan gëmatuñu weddub justice bi bàyyeekoo ci viol acam viol boo xam ne jël na buum takk ci suñu baat di rogoñ rogoñee ñaari at bi le te roñoo dund la tee mooy yéen kaay ko waay waay aji saar sa viol bi tey sa viol bi tribune yéen kaay ne ko dama a comédie la ateb Ousmane Sonko bi comédie judiciaire dong la dàq nañ ko nag ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mee moom binaan naan man final maa neen na ñibbisi ndakaaru te bu ñibbisee moom Ousmane Sonko dina dem ca àtte ba loolu lépp nag ngir bañ deret tuurootu ci réew mi waaye tam ñu àtte ka àtte goo xam ni du ko fekkee te loole nag mën na koo jural njombe goo xam ni maar day taali la te moo yéene kaay ne déet Ousmane Sonko kay dafa def sax erreur ndax nag daw ga mu daw ca Casamance gee làqu fa moom Ousmane Sonko mën nañ koo defal résidence surveillée amatul sañ-sañu dem ak dikk fenn moom maître Ciré Clédor Ly ci Walf Quotidien naan déet moom Ousmane Sonko kay kenn waxul ñu patam patamee andi de kon waxtu ko ne neexee mën naa génn daagu turbine yéene kaay ne ma ne la le 23 Ousmane Sonko day ñëw tribunal wul yéene kaay bi naan maan fukki bakkan ak juróom rot nañu ndax viol bi le peuple quotidien naan kon en tout cas Yaakaar nee ñu ëpp na loolu ndax ñaar fukki bakkan ak juróom ñaar faatu nañ ci manifester te lépp nag Ousmane Sonko ko waral l'info yéene kaay naan maan dàq nañu atta bi dëgg la te loolu lépp nag erreur procureur bi la de ndax nag moom procureur ci boppam moo daal di woolu Ndeye Khady Ndiaye bi nga xam ne moom bi dañ koo tuumaal ci mbir mi te nag ab audition bu amee article article 246 bu code pénal bi dafa ne ci ñetti fan yi kenn mënu caa atte mbir boobee looloo waral nag dàqu procès bii maître Moussa Sarr ci l'enquête quotidien ne ba dafa gis loo xam ne du yoon moo tax nag dàq nañ procès ba ba jëmmi jamono libération yéene kaay naan maan gannaaw ab audience la njiital tribunal grande instance bu ndakaaru day mooy jiite chambre criminelle bi bu boobaa réew mi quotidien naan maan ubbik procès ba Ousmane Sonko teewul waaye maître Youssouf Camara nee na moom Ousmane Sonko jotul ay awokaam naan Ousmane daal bu Sall day ñëw fekk si atte bii tribune yéen kaay ne ko xanaa doo dégg ma ne la Ousmane Sonko talaata ak jàmm day teew ci tribunal l'évidence yéen kaay naan kon terewul danger mi ngi teddu ci ndoddu Ousmane Sonko le quotidien le quotidien ne ko la fa waroon am démb ràññi nit ñi gis dinañ koy dàq ba talaata terewul ay manifestation am nañu diggante sigi coor Sédhiou ak Goudomp libération yéen kaay naan ay ñooñu Ousmane Sonko ñu leen di làq jant bi tribune yéen kaay naan fukki nit ak juróom ñaar yoo xam ne bokkoon nañ ci manifeste gi fi ne daal dinañ leen di niib daal di tëye ci Ndakaaru vox populi naan maan waxtu woowu am nay sénégalais yoo xam ne ña ngay naqarlu dëgg-dëgg yàq nga xam ne ñi ngi koy yàq li ñu bokk Mohamed Sey jàngalekat la ne fippu xel def waaye du doon doole violence ma ne la mësta saafara lenn cim réew wala it mu rax yu fi boo nee da bëgg a soppi mbir waaye waaye la ñuy xaar moom moo di nga andi la gën Amadou Sène étudiant ne lii yëfu bu wëyu la bokkul ak dara ak manifeste yëf yi wëyu la yenn acte yi nga xam ne ndaw leen jàpp nag dafa tax ñu daal di génnee ca fa leen doon xaare duuduka ci direct news mel benn ku naan bàyyi leen seen xel yi ngeen di fowe ñi nga xam ne fi ne dañoo am yéen ak caxat-caxatee réew mi déglu leen fi ne la nu yitteel moom moo di stabilité réew mi tey réewum Sénégal élection ma ne la mësta sarfa ñoo ne bii nga xam ne dañu ne président Macky Sall du ci bokk te ña nga xam ne ñoo bëgg taal réew mi xam nañ leen askan wi ci boppam ñooy dogal ki fii toog ak ki fi dul toog di woote état de droit te bu ñu attaqué état bi nga ni cell duudu ne du yoon le quotidien le quotidien naan maan duudu ka ak S24 xam leen nan ni daanu fayu waa F24 le 27 mai point yéen a kaay daal di dikkaat ci MPD liggéey ak coordination bu ndaw yi nga xam ne ay patriote lan nekk ci ginnaaw professeur Aliou Sow nekk ci tournée nationale boo xam ne daañu taxawal ay bureaux communaux ak départementaux sabab yéen kaay bi naan man falaat président Macky Sall la tribune yéen a kaay naan man boobu président Macky Sall daal ma ngay menacé di xam leen ni nag jëfandikoo nga xam ni ñu ngi koy jëfandikoo internet di ci wax yoo xam ne du dëgg di ci saagaak tëñ-tëñal kan wi nguur gi na ci jël ay responsabilité am yéen a kaay des bi naan man boobu réew maa ngi ci tiis Cheikh Bekka Njaay Kunta juróom-ñaareelu xalif bu Njaasaan moo daal di làqu ña ko uufal ay ñoñam ca grande mosquée ba nekk ca Njaasaan l'observateur naan maan ku yeboo ubbi say nopp te dégg fi mu ne daal mbirum góor jigéen la ñu def ci dessin animé yi xale yi seetaan ku ci deful ndànk sab doom yore commande tàmm télé mën naa dugg ci loo xam ni maar day taali te sababu góor jigéen yeeg seen bëgg-bëgg moom moo di yokk seen communauté maar day taali ak lu mën a am ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm